asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñu topp ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen nuyoo fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall Euh, fii nga xamante ni fii tey fi la jàmbaar ji di sëñ di Fall wuutu fi maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na yàgg ci jotaay bi euh, tey di toggee liggéey bu tedd bii muy ndog yi nga xamante ni bii ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima Fall ci njaarim cosaan li yàgg nañ koo nettali euh, ku baax kee ko woolu woon na ko damay séentu gan te bëggoon nga teralal ma ko te te gungeel ma ko te mooy weeru koor wii nga xamante ne bii tàbbi nañ ci liggéey boobee maam Cheikh Ibrahima Fall tàmbalee woon ko ci njaarim mu doon fukki ndab ak ñaar tey fukki ndab ak ñaar yooyu jur ay junniy junniy ndab ci mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ku tedd ki nag di sëriñ Amdi Fall bi nga xam ne jot na liggéey bi te jàmbaar ji sëriñ Cheikh Fall jëmb euh, yàlla na yàlla yokk ay ngërëmam moom itam liggéey bu tedd boobu mu tàmbali woon ko doon ko liggéey ci gannaaw Cheikh Modou Falilou Fall sunu jàmbaar ja waaye yokk ko bu baax a baax a baax sëriñ Amdi ñëw nag gën a yokkaat liggéey a jaar di ko nettali waaye tamit eh, daal di koy yaatal nag ci ne lépp lu waay indi dinañ ko togg eh, mu mel ne nag eh, jamono ji moom dafay mel ne liggéey mi ngi ko tàmbalee ci gis nga gëléem yi mu ko tàmbalee ak nag yi waaye fii ñuy wax ak yéen nag ku ne xam na ne jamono ji dafay mel ne nag dafa manqué ndax léeg-léeg da gis daral yi fu ne la ñuy dugg pour am ay nag dem nañ ba biig dañoo génn sax dëkk bi dem fu sore sori ci àll bi ngir am ay nag Euh, kon nag di soññ murit yi di soññ taalibe yi di soññ ñi nga xam ne dañoo jaayanteeg maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di soññ ñi nga xamante ni bi dañu ay soppee Cheikh Ibrahima Fall lañ ak nga xam dañoo am yéene jox seen ñàq maam Cheikh Ibrahima nañ xam ne daal euh, Cheikh Ibrahima Fall ci jëf la woote euh, te jëf mooy jëriñe ndax waxoon na ne lépp lu waaye am te joxoo ko yàlla jàppal ne sax moomagoo ko Cheikh Ibra Fall nee na loo joxul sëñ Bamba dana xewi te bu xewee koo ko jox du ko jël kon li ñu denc nañ xam ne sëriñ bee ko moom nañ ko ko delloo nañ ko koy delloo nag mooy fexe ba ñëw sofu ci liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne Cheikh moo waxoon ne ku ma ci jox lu toll lépp tànk ma fàggul la ci lu dootul yàqu te boo faatoo mu duggal àjjana eh, ku ne xam ne ndog ñoroon na ko lool ba nga xamante ni daana kar saxaar si ndog yi sëñ ak ràgg xanaa xamoon na saxaaru su ndogu sëñ Bamba bi tawat su mu fekk ci doomu aadama da saafara comme saxaar soo man loolu nag waxat rawatina jëf ji nga xamante ne tey fii sëriñ bi toog moo ñoo ko fi bàyyi li ñu wax ñoo ko fi bàyyi moo ñu fi bàyyi ndax sëriñ bi daa tayle boppam te loolu murit yi kenn ku ne war na ci yëg boppam kon nag nañ fexe ba nag yi ak ganaar yi ak giléem yi lépp indi ko sëriñ bi te Cheikh Ibra Fall seen maam moo ne woon dabe ndab nee ku bëgg a dab góor yàlla yi jox ñu lekk ba suur buntu boobu rek a fi des muy buntu joxe ñam te buntu boobu maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko ubbi kii fi teg nekkal maam Cheikh Ibrahima moom da fàkku na ba jeexal dencu dara ku gis ni mu songe liggéey bu tedd bi xam ne lam waxoonte woon ak maam Cheikh Ibrahima Fall jëf na ko Cheikh Ibra itam moo ko fi bàyyi muy kéemtaan te dana gën a doon kéemtaan nag ndax fan wu gudd lañ koy ñaanal ba muy kéemtaanu maam Cheikh Ibrahima Fall ba bi muridina waaye daal mbokk xam na daal fii ñuy wax ak yéen daal sëriñ bi moom mi ngi ci jëf ji ci la taxaw te sëñ nee na wax fu mu ne yegg ab diir jëf moo ñëwut waaye bu jëf ñëwee waxtu ko kon daal nañ xam ne jëf rek a fi des kon nañ fexe ba lépp lu ñu am ci aw ñaq lépp lu ñu am moo bu ci yàlla àndee te sëriñ bi bëgg na yokk liggéey bu ba baax a baax a baax ndax fii mu ko yóbbu rek kawe na njortu te yaakaar naa ne ci kanam la jëm ndax loolu mooy yéeneem loolu mooy pas-pasam ndax ku ne xam na ne la ma wax saa su nekk dama koy wax ne keroog ba maam soxna Fall Mbenda eh, yàlla dogal tabbee ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina eh, te te te te ba muy ñëwit eh, indaale lu baree baree baree bari ci maam Cheikh Ibrahima Fall jox ko Cheikh Ibrahima wax nañ ay takkaay ak ay ay ay ay ay ay fasak lu nekk indaale na ko ba ci am ci ñoo xam te ni bii sax dañ ko ko joxoon waaye lépp daa ñëw jox leen jébbal leen maam Cheikh Ibrahima Fall xam naa ci ñaar ñoo xam ne maam Cheikh Fall maam Soxna Fall Mbène daal leen indi ci loxol maam Cheikh eh, teg ci loxoom mu ànd ko mbooleem soxna yi mu bokkaloon ci biir kër gi eh, sëñ Sidi Naar Jenn yàlla na yàlla dolli ko fa yàggal moo ma wax ne ma na kenn ci mag ñi magi sëñ Baara Jenn yi wax ne am boo xam ne sëñ Issa Jenn gane si na maam Cheikh Ibrahima Fall ndand ñoom ñaar ci benn jotaay korog maam Soxna Fall Mbène daa bernde doon ko berndeel Cheikh Issa Diène nga xam ne ñoom ñaar suñu masaane dajee wax nañ lu dul fàllare lu lu dul ganaar bu ko maam maam Cheikh defaraan ci këram fàllare ga Seera Fall ko yónnee dañoo taqo woon Issa sama rakk ju baax ji mu ne ko dégg ci penku bi te boobu nee na Naar ñëwagul jamono loolu lépp day wone ne kon Ibra nag nee taal boo gis mu tàkk tàkk roof naa cak matt nag <laughs> waaw loolu la waxoon nee na taal boo gis muy tàkk roof naa cak moo tax Cheikh loolee nag maam soxna Fall Mbenda liggéeyal maam Cheikh Ibrahima moo tax koroog ba benn ba ñëwee 1904 muy sëñ Modou Fall Mbenda ca Tasineer Seera Fall ne ko benn la waaye dana barkeel damay wax saa su nekk du denc di ko wax barkeel mënta weesu tey kër Seera Fall gépp topp ci gannaaw sëñ Amdi Modou Mbenda kon lii la Seex Ibra doon junj maam soxna Fall Mbenda lii la doon junj ci sëñ Modou Fall Mbenda tey te sëñ sëñ bee ñu wax nii nañu am na lu sëñ Modou Mbenda ñaanoon boromam nee na ci sama jëmm ji la feeñ sëñ Amdi ñu ko wax fii ci biir kon nag loola feeñ na tey ji mooy liggéey bi xoolal fi ñu ko yóbbu tey te mi ngi nii toog demul fenn lépp yi dox kon nañ xam ne képp ku du taalibe ak foo mën a nekk lii war na laa soññ nañ jël li ñu am lépp indi ko maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Kurban.